waa maa ngi maa ngi tudd Salimata Ba madame Tunkara nekk maîtresse sage fii ci poste de santé Mboro 1. ci euh, consultation yi ñaata ngeen euh, defal consultation ak est-ce que am na ay cas yoo xamante ne def nañ ay consultation su juróom fukki jigéen ak juróom waaw ci diiru juróomi fan ci ruddee su euh, ci. Euh, euh, zone des ñaay bi yëpp lañ ko def sur cinq sites c'était euh, sur cinq jours ñoom ñëpp defal nañ leen ay frottis ñi nga xam ni seen frottis gis nañ si ay problèmes ñooñu jéem nañ leen saafaraal seeni tawat yuñ ci gis ñi nga xam ni tam mënuñu ko traité sur place aussi orienté nañ leen te ñoo ñëpp dinañ leen suivre ba yàlla def ci ñoom jàmm. gis ngeen ci am na si ay cas doy waar moom. am na si ay cas yu doy waar. mais mënaguñoo wax lim bi. sànq yaa ngi yokk wallu lu jëm ci wàllu poste. waaw dañuy dañuy waaw ay jafe-jafe lañ am fii ci poste de santé Mboro 2 Mboro 1 parce que soo soo soo seetloo Mboro 2 dafa Mboro 1 du moins dafa nekk zone bu accessible femme ruddee ñaay yëpp. presque fii la ñuy ñëw wa te vraiment c'est des personnes diminues am euh, seen seen am-am demewul noonu te poste de santé bi manqué na personnel qualifié manqué na ay salles surtout. amul sax ambulance pour pour pour référer benn waaw màgget na tamit yéen yéen a def constat boobu donc daal wàllu la ñuy ut ci autorité yi te santé Mboro war na am centre de santé ndax boo xoolee poste de santé Mboro de Mboro 1 li muy li muy li muy li muy laaj li muy soxla si si li muy jot ci ay ay ay ay patiente par jour euh, romb na deux 250 juróom fukk waaw ñaar téeméer ak juróom fukk waaw donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi woote wàllu daal képp ku ñu mën a dimbali rek ñu ngi lay xaar. dañuy am jafe-jafe pour évacuer seen maladie. am jafe pour évacuer malade bi parce que am nañ ambulance mais am ambulance bi fonctionné lul depuis plus plus de six mois te tout le temps lañ lay yee doo soit ci clando ngay dugg wala ngay woo yeneen post de santé yi ñooñu au moins ñooñuy aider pour ñu évacuer mais des fois nga oote ñooñu duñu mën a libérer seen seen kii te day poser vraiment problème. kon post bi dafay polariser zone Ndeye Niang bi ko daggee euh, Mboro ba Jogo. waaw fii ba Jogo maladie dañ am na sax maladie yu jóge ba Lompul du ñëw fii di fi fajoo waaw parce que poste bu yàgg la fii ba Kër Mbir malade dafay dafay jóge di ñëw di faju zone Ndeye Niang bi yëpp nekkul population Mboro kese lay servir mais population zone bi yëpp dañuy zone Ndeye Niang bi yëpp dañuy ñëw di faju fii. ci rafetlu ànd bu ñu ànd ak euh, Pro Sénégal. ci jàppale mbooroog li ko wër ci fajum bëñ ndax euh, nit ñi soxla ko waaye dafa mel ni bu dul Tiwaawan Cees amul woon fu ñu ko defee euh, mbokk yi ñëwoon nag ànd ak ñun ci ñeenti fan altine ba alxemes euh, mën nañoo tënk liñ doon def ci ñetti ñetti bunt bu jëkk bi yee nit ñi ci luy carie dentaire feebar bi yàq bëñ yi di yàq siiñ euh, nu ñuy borosoo ndax neexul ba neexul li ëpp ci senegal da ngay xëy rek jënd pat boros euh, yaakaar ni mën nga ko bombe nu la neex wax dëgg yàlla nag dafa am nu ñu ko war a defee ñu won ko ñu nag dañ ci gën a taamu xale yi ndax ñoom xëy na bu ñu mënee mën na am du ñu soxla dentiste lu bari suba waaye bu leen yàlla mayee dund ba ñu am njaboot mën leen ko jàngal Euh, loolu benn volet la ak ñi ñëw di faju si faj mi nag bu ñu koy xool dañ mën nañ ko tëng ci ñaar yi yàquwul trop ñu faj leen euh, ba ñu wér xam naa du xaj ci ñeent yi waaye ñoom bu ñu demee euh, bokk na ci sama liggéey yeggalee la ñu tàmbali woon beneen bi mooy bëñ yi yàqu ba pare ñu dindi ko borom am jàmm ñu accompagner leen itam may leen garab yi ñu war a soxla ba góom bi